mbaa yéen nga jëy libération ne ginnaaw cool féw bi yoy jolli woon ci kaw Bougazelli ñi ñu ko tuddaloon ñëpp bàyyi nañ leen libération ne muy saar de Senelec ba ci Petrosen ñoom ñëpp génne nañ leen ci code des marchés maanaam léegi nag mën nañoo doxol def seen i achat te duñu tënku ci procédure code des marchés seenu liggéeykaay nooyis lëf ñoom rawatina ci wàllu code des marchés ak yi xat-xatam di saax Senelec ak Petrosen libération ne léegi wàcce nañu leen code des marchés ñu mën di defi achat am jënd ci luñ benn yoon ci procédure code boobee ci fànn woowee ñoo ca yam àtte ak réseau gazier bi ba yéen a nga jë libération ne ginnaaw cool féw bi yoy jolli ci kaw Bougazelli ñi ñu ko tuddaloon ñëpp bàyyi nañ leen libération ne muy saar de Senelec ba ci Petrosen ñoom ñëpp génne nañ leen ci code des marchés maanaam léegi nag mën nañoo doxal def seen i achat te duñu tënku ci procédure code des marchés seenu liggéeykaay yi nooyis lëf ñoom rawatina ci wàllu code des marchés ak yi xat-xatam di saax Senelec ak Petrosen libération ne léegi wàcce nañu leen code des marchés ñu mën di defi achat am jënd ci luñ dul tënku benn yoon ci procédure code boobee ci fànn woowee ñoo ca yam àtte ak réseau gazier bi